yaakaar dëkkum te du doxaan suñ fa looy baaru lan waa ñu dolla rëng baay mbeen galam baay mbeen kon alaji fa looy baaru lan waa ñu dolla rëng kon alaji fa loo baaru lan waa di walla rëng ba tax nan dëgg ndànk tagi ndanga bane ko tek bay dawza na dëgg ndanga bane ko tek Cheikh Saliou ba jege ngay réew mu jege ngay réew te taxula bew Mbacké doy nga ko borom jàmm ji yaay borom jamono ke borom jamono yaanu moom te taxula bew ahmad al xadime siñ bu mag bi tuuba ahmad al xadime siñ bu mag bi tuuba ahmad al xadime ahmad al xadime ahmad al xadime bu mag bi Touba tax na ko borom gaal gi jël na gaala bay mun taxa ba taxulaa ku bëgg xalifa bi defal nii sa loxo ci sëñ mun taxa ba taxulaa i munu sëñ Basiiro bay mun taxa ba taxulaa bala esalum fi gën a yàgg xeewal li baawaa loxo ba ku Muntaxa ba fi gën a yàgg xeewal li baawaan taxu laa ku xalifa bi defal nii sa loxo ci Muntaxa ba taxu laa bew andooy ba imunu bay Muntaxa ba taxu Seex Ibra Faal yaa may sutural taxul laa bew adoy nga ko dem ku sopp maam Seera Faal yaa ma sutural taxul laa bew adoy nga ko dem Amar Faal Seer Njaay ya borom gàllu ge Faal laa Seer Njaay adoy nga ko dem laay lay la la jaarama fal nii ci kañ mu déggeen dem ba faal taxulaay duy saama defal nii san mu ji ajara karaara taxulaay abdu nga gone amam seex nga kureel bi man yu xaatibu nii fi zawri rawdati tani min xawli maan bi loo fi yamaan في زوري بيتاني من بيتاني من خولي من الأرب أما قلبي لو في بالجم تكرار لأنه بالهدى والنور جرار رأيه saadatul muridiina fi am daay xayri mursaliina Bamba ko wax lu jarna xalbi lawoo fi takk bil jëmi takraaru li ana woo lil hudaa wa nooru jaraaru raiya saadatul muridiina am daayil xayri mursalina Bamba ko wax nooru jaara ah xal bi la woo fi tak bil ngir mi takraaru ah, li ana woo lil xunda wa nooru jaara رأي سعادة المريدين في أمداء الخير مرسلين بابا كواخ نور جلال yàlla wa mujiz bi yada bal wi ñu loosi bi la ilmin wala amalin wala fuxara daban ilmin wala ilmin wala amalin wala fuxara ahmazan alali xarira يجزا ولذا آدت دابا وخرا ولذا ولذا آدت دابا وخرا حيا الله خارم في دبرا

Ahmadu Bamba nee na xaddaal xanjin bi mal xalb yadlu min al manaaxib bi taswiif wa israar mal ah, xalb min al manaaxib bi taswiif wa israar فاليوم واجد وإيدي بل أبدا billahi tawbata man adna khawara wal yawmu wa'adatu billahi billahi tawbata man adna khawara mam babalena qaban aruni biduna bi wa kukan kabali biman ala yali darki zawra بمن بمن لا يلد رمي سوره أحمد بمن بمن يغاتبني في ذور روضته بيتني من خول من بالله أمار بمن يخاتبني في ذور روضتي بيتاني من خول من بالله أمار Ahmadu bii man yu xaati daw di rawdatihi baytani mil xawli man fi daw di rawdatihi بدني من خدما لله أمارا بمن يخاطبني يخاطبني بسر روضتي بدني من خدما لله أمارا بمن يخاطبني في زار روضتي بعيدا نمر

جودتي بيتنا من قبل ما بالعرف يما الشيطان من الخول من بالعرف يمارا Everybody is not doing it. بحول الأولادية بيتاني من قولي ما بالعرف يما طيبة وإذا تربيك دار وعالم دنيا سأل وأوار سنتوبة أمر مرام أي بكي سيكون في أدنى سمرام نزل وأوارا كسب سنتوبا كسب سنتبا سويفا تتبي أيانا تلا كنا نبرم دار يا يا ذلك اجل يا ما منتمرا من كان تجاوز أما أبا أو زغارا وجدت وجهي إليك اليوم متجيا كوني لديك كما أبلي بفضلك يا وهاب يا بابا اليوم مرتديا جعلني لديك غمرا إذا وارا أبلي بفضلك بفضلك يا وهاب mbooloo mi ñaar loxo ca kaw ñu màgg sëñ Basiiru ku def yàlla moo loxo bi métti ñaar loxo ca kaw maaliki our heart. إياك مدر إذا وعارا كجولة كمن أجو ومن ثار بجاي من أيسما سادة قاربا

saadatu saadatu saadatu saadatu saadatu saadatu saadatu saadatu xaarabo saadatu saadatu xaarabo خرب وسمس تخارب في ذا ويا خمارا ne kulli dam sisaaro للخدم تون لدى عين لو نظرا لكنه من خلد بري أبطاره يكون للبن ماء تاب مسربه لكنه من خلد بري أثاره atanu ma un wala kalmun munsajiman wala tujaari nada bil may am daaru saakal mala sunasi arjo tajata bi dunya wa ukhra falati awlo jaaru wa huwa allazi qajismi at ziyarati laki lisani law gal qalbi sawaaro na bu leen tëkkale wala ngeen di dendale wala ngeen di gàngamle yaa rasul ku sopp yonent bi falaata xiir laa yi bi la fodala innal kawaakiba yoo fi asinima Bamba nee na bu leen dëggale wala ngeen di dendale wala ngeen di gàngamle yaa ku sopp yonent bi lil mu tabaaxal waa laay man sama doom la ujiyaat na waa kulal waraa خير خلق الله المصطفى كل الورى سري بمنا رامل ورى مزرئين الفضل عند رسول الله mbooloo mi xol bu ci yëg Sëñ Tuubaa yëkkati sa màgg Sëñ Bamba xol bu ci yëg Sëñ Tuubaa daal laa yëkkati màgg Sëñ Bamba inna rasulullahi xarra ku bëgg yonent bi raamal waraane la fate lu musri inna la wal fadlu inna rasulullahi xarra nee da rasulullahi xarra sëriñ Bamba nee na kiltaaya day ilaa yundu laa baslun wa baasun liman laanu wa man jaanu Muhammad ñaari loxoom yëpp la daan xare basul wa baasul man laanu wa man jaanu sëriñ Bamba nee na kiltaaya day ilaa yundu laa مكنون وباذ لمن لان ومن جان محمد ñaari loxoom yëpp la daan xare wa baasu liman wa man jaan sëriñ Bamba nee na kiltaaya day ilaa sayuntu wa bahlun wa baasu laan wa man jaan Muhammad ñaari loxo la daan xare batul wa ba'su liman laan wa man daa Sëriñ Ba ma ne na law minal iman yaawi badrun aw junu aw malakoot wa sadru misxaar sëriñ ba ma ne ma la woom la dal lay sëñ lu laayu taale woon bil kardi wal ilmi roxo ba noon wa ambaaro sirun bil kardi ilmi roxo ba noon wa ambaaro ah sëriñ ba ma ne na waam li yaa dara bi taani summa bihim an laa uxaali tamaa لدر جرا لا إله إلا الله سبحان ربك بحمد ما يصفون وسلام يا خير مخن الخدا أجل بلا كل بن يا من بكونك الفارة بلوايا